jërë jëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax tey nag maa ngi fii ci émission mag bi nga xamante nii nii mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci mbokk ci fans yi waaye su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñooy dugg ci digg géew bi jëflante namoon ngeen ma nag waaye man tamit namoon naa leen ndax gëjoon nañoo gisee fii ci biir jàmmaarloo bi waaye di leen wax ne nag maa ngi leen di maa ngi leen di waajal yu neex yu am solo yoo xamante ni nii euh, yu ngeen yi ngeen faral di xaar ndax fa yi gis naa gis naa yeneen ak yeneen yoo xamante ni nii xam naa ne sama ak sama sama sama sama nan laa ko waaye sama ñàkk teewaay xam naa moo tax ngeen kii mais nag noonu la gars yi moom defe naa ne li ñuy wax ak lu baax lu ne dañ koy rëyu mais tey nag maa ngi fi dalal ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañ nag damaa andiwaat diggante dër bi bi nga xamante ni mooy Lansar ak Parcelles ndax damaa dugg Parcelles andi Mbacke Faye mi nga xamante ni bu jugee waa Parcelles gépp jóg ma delloo Lansar andi ki nga xamante ni mooy Daouda 110 ñoom ñaar na nekk nañ xale yoo xamante ni kenn du leen présenté ndax manqué nañ suñu empreinte ci làmb def nañ li nga xamante ne moom la ñu war a def ndax Mbacke Faye moo ngi ci 8 combats 6 victoires 2 Daouda Sandwich moo ki ci 10 combats 9 benn défaite defe naa ne palmarès boo xamante ni palmarès bu baax la ma bàyyi leen ñu nuyoo ñëwee waxtaan wi Daouda nuyu naa la. waaw siyaar nañ la gaan bëgg nañ la siyaar jàmbaar yi fi daje yëpp yëpp yëpp ak yaay booy bi taxaw nii di bëgg waa gépp di nuyu suma yaay ak suma mag ak suma famille yëpp maa leen siyaar di leen bëgg bu baax a baax di bëgg mbër mi nii toog nii gaan. mbër mi Mbacke rek laay wax. waaw. Ah. soxla nga xam tur beeg yooyu. daa garaaw. Ah. mbër mi rek doy <laughs> nuyu naa la. waaw di wax auzu billah bisimilah jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suma waa waajur di nuyu ñu taw fii ñëpp di la nuyu Ousin yow di nuyu sama adversaire di nuyu suma waa dëkk waa ceeb di nuyu waa Ngoy di nuyu Maam Nguur suma yaay Walu Ndiaye maa ngi bu baax di nuyu sama waa koñ parcelle 1 ba 26 waaw rawatina gox bi ma dëkk muy unité 12 bu baax di siyaar bu baax a baax lan mooy waral gëj a bëre bi. kan nga mujjee bëree sax. man Petit Ba bu jaaro yi. Petit Ba. Mhm. lan moo war a gëj a bëri parce que boo ñu xoolee bi nga bëree ak léegi ñu ci bëri bë say morom ñu ci bëri bëri nañu ba bëriwaat boobaa ak léegi yaa ngi toog di xaar. waaw bëri bu adversaire yi rek xam nga léegi làmb moom mooy tonte bi daa bari te tegg bi dafa bëri. gars yi dañ lay jox avance na la tànnal koo mën a daan nga jël ko. yooyu la la gars yi def waaw loolu la promoteur yi def léegi. léegi bu ñu xoolee koo xam ne day entraîné. waaw day entraîné duñ ko fi bàyyi dañ lay teggi moytu la moo tax ñun boobu léegi suñu carrière ay ban dalee bëre ba léegi def huit combats. dëgg la yàgguñu si làmb yàgguñu si kii mais huit combats du yoon mbër bu ndaw chaque saison war nga bëre trois combats ba quatre. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu moo la génn mais a diis tuuti. déedéet man aw problème mu ay problème xaalis man damaa am ñu ne sama ginnaaw Passemane Dieng Bamba ak Ndiaw ak ma xaalis wallaahi soxlawuma xaalis bu doon xaalis la du ma ñëw fii du ma dugg ci làmb soxlawuma xaalis. kon yow daal li mbëri ndaw yi di jooy yow moom loolu. man jooyu ma loolu man bëre laay jooy bëre. am combat am combat. ndax ah. même bu ma lii sax damay dem ci àll bi di bëri ji yàlla mooy suturaal may am ay as as weccet waaw ah, man bokkuma ak mbër yi comme genre yi toog entraîné nii mbaa mbër ñuy xaabar xaabar dafa ñu aw fa au moins man damay entraîné dugg ci àll bi. <laughs> tey nga bañ a tooñ. non tooñu ma duñ ñii dañu ay duñ dañuy toog fii rek. ah dañuy toog xaar ñëw ñu bëre ku ne dem. defe naa ne kii li ko wokk yow kii li ko wokk yow moo la defe naa ne yow tamit sa gëj sa sa combat dafay soyantoo trop. non man may daamu man ko amul tur ay borom ñetti combat ñeent du ma bëre ak moom Ah, moom mii nii taxaw na léegi nii wax ne day génn si àll bi dem mooy moom lu muy dund moom la concerné ñooñu nekk si am mu lim leen nii bu dul làmb duñ ko geesu est-ce que dégg nga wala déggoo ma. bu baax ma xam nga lu ñuy xaar. weccat bu ñu lay jox nga bëre daan leen. man duggal géejawaay. stade géejawaay ñoo ngi ko baas box 39 maa ngi fa toog di gérer ñaari box. man même làmb sama xaalis laa yëkkati dem si ak sama xaalis mag ku ñëw rek ma see fekk. man du ma mbër yi toog teel a xëy guddee waaj yooyu noonu doxuma sax si mbër yooyu noonu pour mbër yi xëy wuti doole ñëw ne ràcc si kër gi seen i yaay leen dund ak seen i papa nekkuma si yooyu. waaw fii yaayu kenn dimbaliwul doole. lamb du amee nag dinaa ko yëgal ñëpp. <laughs> ku ñëw da ma see fekk ku ñëw da ma see fekk. mais sama waay da laa teel a ñeme de. non man xam nga des fois ma xaw a man man du ma eh. man ku ma ñeme man du ma ragal góor. ñeme sa musiba. waaw yow man may doomu séeréer lu may ragalee góor. doomu séeréer man may pour lan loolu. dina bàyyi kan kii kii nag léegi mujj naa nekk seytaane. a doon doomu séeréer yi ki nii kan. lu ah, fi def ba bàyyi fi def ko ko fi defaat. anamu dama toog si doon xaar day mujj. teel mi ko ku am nga foo de. xam nga Ousseyn boo taxawee daa man damay taamu doomu séeréer doomu séeréer daa force lamb ji yow doo mbër bu ndaw maanaam yow dafa ko fi dara anaan da am sa fit am sa doole. ñoo taxaw kenn mënu la kii barke alxuraanu karim mooy sama pain au bu ma ko jàppoon pain au lait la barke moom Serap Fall dama ko benn voyage laa koy def. kii ñi may daan kii ku ko mais déggoo li ma nee na yow yaay pain au lait. pain au moom bokk na ci ci pain yi gën a nooy. yow xanaa xamoo wax la ñaari baat géwél yi ngay dégg mbër leen daa ko wax. géwél yi ngay dégg nii mbër leen daa ko wax. mbër. mbër a mën a wax li muy wax taxaw ñëw làmb ja mel ni du moom ah comme mais nag mais nag kii kii kii kii kii nag yow Daouda Mbacké. loolu moom la Mbacké nag bu ñu waxandee dëgg rek. waaw. Mbacké ba abi sifli lépp loo xamante ne war na ko ak amateur yi lépp loo xamante war na ko promoteur da koy def. te yow tamit xam naa ne yow. maag moom duñ taxawee loolu mu doon def ak bii day uute. fan nga teg loolu. waaw yow dugal si làmb Daouda nga xool Daouda mu diwoo suuf taxaw góor dëgg koy affronté mais du genre. waaye li ma gi parcelle gi dafa nekk la fi daan daanu fi mbër. pour waa parcelle waa boor bi <laughs> damaa xam ni daan kenn dina lim da lim da xam ni daan man man ñi daan dañuy déglonte rek ah. man ñi daan mm-hmm. boo limee ñaar rek dootoo xool ñi daaw da daan man maa daan Modou Baye Fall mm-hmm. mm-hmm. ñi may dalanteel dalante kii maa ko pour doole fu fi may dem ci àll bi di rañe di yegg barki alxuraan bu demoon premier tour day day teel a fopp ay bagages am dem. barki moom Seydou Fall. bësal toujours xonk kii maa ngi moom du moom. bu coupé coupé coupé coupé bësal <laughs> bu baax wax ni yàgg na si bër. ku nekk ak ñi muy bëreel. ah ak ak mbërëm de. baaye ko amul ay millions ay génn foofu nga bëre neuvième combat boo dul mbër duñ la ko jox dëggam leer kii nee ko mu ràññee si tout temps man. la dëgër mooy maa bëri sixième combat bi. boo ñaa maa bëri septième combat kii ay combat yu mag lay wax li ma ci bëri bëriwu ko. kii amul ëpp mag yan. moo tax yow nga am fitu taxaw fitu wax man. journée yi mag yi ma bëri xaw a moo tax kii am fitu wax man mais bu doon journée yu ndaw yi laay dugg kon dem naa bu yàgg. journée yi eh, mag yëpp da daanu bu ñu waxee benn defet nga am sa tentaw benn defet génne ko ci essence nga barki alxuraan daa yàgg bëree. wallaahi barki maam ba njëkk kii si làmb ji kon tey kii lu am si làmb ko. xam nga xam nga ma ji xam nga ma. <laughs> barki defal mu gën a torotoraat billaay wallaay boo duggee parcelle dañ naan la mbàkke xale la barki maam Seydou Fall ma la wax man moom du ma nëbb sama man yàgguma si lamb dara man sama 40 mi ngi nii gën laa juddoo yaa may dégg man laa juddoo man 89 laa du man aw ma jot boobu mais doo bëggee dégg dëgg barki Seexul Xadim ku la man maa ko mën yow mii Daara yow li ngay wax nii dégg nañ ko xam nga leer naa lay wax barki alxuraanu karim bu ñu tëjee ci ne tegal ñu mbuusu gerte caaf ku daan yëy barki Serigne Touba Mbacke bi ma yaakaar doo yëy benn lamb barki alxuraan yi wax ne waaw ah, umba man wax umbari léegi dama ko visé da nga na xam ah, waxuma la arrêté doo daan waxu doo daan ak arrêté fu taxaw fu oto bi taxaw bu gars di wàcc di tuur ndox sax bu dugg ci loolu déggoo li ma sax barki alxuraan dama koy daal billaay <laughs> mu daal ma wax ji mu wax mbay mbay mbay guy gi waxoon na ko ba ko saar ko jàppee lu ko def wax la rek rek waxu mbër moo mel noonu. mais tamit mais tamit alburi alburi wax na ko ñoom daan mais da koo def de waxu mbër la. da koo def de waxu mbër la waxu mbër moo mel noonu. mbër moom doo ko ngeen dégg xool samay combat ak koy xamoo mbër amee problème taxaw tribunal duñ ko dégloo duñ ko tëj. ba li nga wax. lu leer laa lay wax nii. kii waxu théâtre kat lay wax barki Cheikhul Khadim laa la billaay wallaay mën nañ nekk si làmb di wax nekk si plateau di wax mais ma suul sama ndey ak sama baay mbër moo jaarale woon àllu jam ñaajo bi génnee ko ñuy xuus du dem du bari mais nag li ngay wax nii est ce que am na ma koy dëggal ba na fi mbër yoon. ñu waxee nga ne góob mbër. mais bu ñëwee ci digg géew bi nga xeeb leen. man man mbër. waaye maa dégg may wax ju bari. Mhm. barki alxuraan man du ma wax wax bari. mais man samay combat du mat minute. mais est ce que xam nga ne bu ñu fi jógee bu ñu fi jógee daawra daawra est ce que xam nga ne bu ñu fi jógee dinaa woo ay promoteur kan Macky. waaw waaw léegi si fii lañ ko waxee. waaw amul promoteur. mooy waxaale du déggoo ak moom. waaw du déggoo ak moom. lu ma fay ma jël xam nga maanaam maa nekkul mbër boo xamante ne man damay wanteer sama parce que promoteur seen bopp lañ fi nekkat. waaw. est que yaa may dégg. bilaay boo ko wootee wax li wax nii. boo ko wootee léegi mu wax seen intérêt da seen nekk dañ koy tëj. mais Ouzin fii laa ko waxee yàlla bu ma toogat si dënnu parce que xale yi même benn vidéo bu Mbàkke laa la wax. même benn ma woo léegi léegi léegi. sama làmb kii doo ko waxaale. mu jël ko maa la ko wax fii. ay góor ñoo toog. waxaat ko ma dégg waxaat ko sama làmb la si fay. doo ko nangoo indil ma avancé bul woo bu ma woo. Ousseyn yow ma la wax sama commencement xanaa nee naa la man aw ma problème mu xaalis. man xaalis ndawal ma dugg ci lam lamb amul laa ci am na bëgg laa ci am ndax mun nañ bañ a waxaale. mooy jokkoo da koy nekk man Ousseynou bu may topp bu may na la jëli woon samay vidéo bu may bëree barke alxuraan adduna may topp. gis naa adduna ñoo may topp kii takki sax mënu ko andi kalandoo du ko am kii moo tax moo tax lambam tardé. kii daa andi taxi yow xam nga nit mënu faa jógee te doo indi mafia yow xam nga sax loolu yow jàmm gën nga mën fa jógee. yow xam nga sax loolu ñun même duñ ngemboo feneen sax barki seexul xadim bundu kër gi day daru boo kii rajo rek lay ndékkee day wax rek di tallaxu nii di mbel mbel jot boobu sax kii li daj daj ko Papa Ndiaye li kii dajul barki Serigne Touba Ousseyn boo xoolee kii xam ne dajul coono mais nag man li ma xaw a jaara ci wax ji mooy kii da nga koo xaw a ñeme man du ma ragal góor bu ma naree ragal góor yàlla ma yàlla rey barke Serigne Saliou Mbacke. daaw doo taxaw ak seulement suuf bi taxaw. waaye ay jaajam ne di woo kew. allo lamb rek lañ seq. Eh? sa waay amul ay daaw de di kii ngay dureegu ah, ah. nii. mais barke Serigne Bamba Mbacke laa la wax barke alxuraan lu dul lamb. man sama lamb man sama lamb man man man si boppam. barke Serigne Saliou Mbacke xamul daaw nag. mais billaay walaay dama lay humilier benn par benn pièce par pièce. billaay walaay saay ñu sax. maa ak yow lamb rek lañ séq bul ñaan yàlla ñu séq. leen non bis bu avance génnee. luñ mën a séq. moom laa lay wax ba pare soo ko lijjanti. barki afro mu wax mu def ko barki Serigne Saliou. kii buñ demoon ci ruxu. ma si jëflanteel prix dib la ñii. war na Serigne Touba buñ demoon ci ruxu lu ma la wax seen lambin rek di wax gaasa. booy góor yàlla yi ñu ci biir góor yàlla yi. man ba ma dalee bëre ba tey adhéerul ma mbër. mbër dóoru ma wane ginnaaw mbër dóoru ma wane ginnaaw ñoom mosu ma wane ñàkk fële ñoom la boo mënee bëre xeex coono la yow de doo man a bëre man du ma coono la barke alxuraan boo mënee bëre avant ñuy ay ay avant ñuy bëre ma lay duma ba pare daa mën a duma kenn eh, loolu amul ci yow amul yow doo bàyyi yow doo ma bàyyi yow kii day xaar kon kii fi mu toll nii bu seen lamb kii man lu ma bëgg a toll dama koy toll parce que am naa xaalis moom am bu neex laay lu baax laay lekk man salle bi entraîné moom lu ma la wax da nga koy yóbbu da nga koy yóbbu yóbbu ci gétt gi mu visité day liggéey am yóbbu ci gétt kon lu ko neex soxla ma ay géttam moom man li ma yor ci ay gétt moom yoru ko soxla ma ay géttam du nuyu magget yow da Maguette borom laa dugg maa ngi koy nuyu du Ibrahima. Maguette moomu day xaar Daouda Sandwich. mbër Daouda Sandwich da ngaa neexal. kafe ah, la amee tur rek wax la wax la ko barki Serigne Bamba kafe dong laay wut jàllale ko ah Daouda Sandwich kii Sandwich bi la. Péolé benn mbër ndékkee dugg mbër mu doo yéegee si. yow yaa gën a nooy man laa nga ngandul wàcc. Daouda Sandwich yow doo mbër. Daouda booy bi ñëwee na la temps yi la man déggoo ma la ku ma ñeme ñeme sa musiba. waaw yow man chaque jour ma ne la mbër mi sóoraale reliquat doo ma daan. waaw loolu yàgg ñii dañuy booy yii nii ñii barki alxuraan dafa déggul li ko kii duñ daje may dugg muy dugg. day arrière ma na pare mu dugg. lu tax loolu may may ko mu ñëw may ñëw lu tax loolu. mën nañ nekk fii ñeme ma. mais duñ génnee ma ñoom kese. amul kenn ku si ñeme wax ak daaw da na nga def doo ma nuyu sax doo sax nuyu li ma lay wax mbëri fi jot a jaar kóol leen. Mhm. nga laaj leen yaa ngi daaw wax seen làmb a jaar laa la wax. waaw tubaab bi nga laaj leen yaa ngi daaw leen jot a jaar. mais nag daaw est-ce ma tegaloon fii nii fii. waaw làmb ji nekk diggante taxaw ak bañ a taxaw. Mhm. ba ma dalee ba xam ne làmb ji du taxaw jël na keneen. Mhm. laaj ko woo ko kóol nga laaj ko dañoo daje ma lijjanti ko ba pare. yàlla du laatee ñu bëre feneen ñu bëre feneen. mais man doo xasee ba ŋaayeeku ba pare dañ koy eggali. dañ koy lijjanti. kii parcelle googu muy wax kii dafa baax di wax di dellu rek. man mosuma gis làmb man nekk fa man di tëkkoonte jëmale bu kenn xamul wala ma nekk làmb man di dugg sama yoon nekkul. Ah, da ngaa bëri wax rek da ngaa bëri wax rek. di wax du sama mbër bëree nag ma ñëw dudd si làmb ji lu ma jàppale ko bu la ma saa di di këñ moom wax na ma ko rek man dina am waxtaan. Ousseyn dégg nga am na wax. dëggul ma ne la yow waxal naa làmb ji yow. yow kay joxe nga yow joxe nga sax ko moom laay waxee. waay waay waay moom laay wax loolu moom la. waaw kii maa ngi woon. nañ seq làmb rek. barke alxuraanu karim li may wax bu dee nekkul ci man yàlla bu ma yegg fi ma jëm. barke Serigne Salim maa ko sañ-sañ barke alxuraan maa ko fit. si télé maa a kii bu dajee barke alxuraan lu mu ko wax da koy def. si télé barke Serigne Saliou Mbacké na ne. barke alxuraan yàlla bu ma teral suma yaay bu ñu ko wax da def maa ko sañ-sañ fuuf. li ma capable def ko capable def ah, bu ma ne ko wul xëyee du ma ne xëyee ah, waaw maam Seera Fall kii darul dem sax diin wax na li mu bay dem ci diin xoolal li mu la lii état la. ma déggul ma. waaw ma déggul ma ki déggul ma. waaw dinañ bëri te du doon am man maa la wax te daa la ko. gawoo <laughs> daal na doon tey na doon léegi. dinañ bëri te du doon làmb te dinaa la kóol. na doon léegi gaan. te doo xefee ma lay woo appel bàyyi téléphone sama poos ngay dégg. <laughs> barke maam Cheikh Raval du xefee en dañ ko koy dawalal. boo yii seen laamin dañ yor rek mais barke maam Cheikh Raval boo yii ñu si ñeme affronté daaw da bariwul. Ousseyn lamb taxul ma raakaatu rek. pour lamb rek. rek man ma dëkk kii day ndellu rek man góor yàlla laa man góor du ma arrière loo barki maam Serap billaahi góor du ma arrière loo. bu ma ne saa gis nga góor dee benn la du ñaar du ñett. Mm-hmm. barki mais da nga koy sóoraale. yow daara man bu ma dee bay sóoraale <laughs> daaw du ñaar du ñett mais ma ko séeroon mu ñëw léegi ma affronté ko. xam ni yàgg yàgg day teew. mais ñii nii ak ma suul suma nday booy du ñu. waaw nañ daje. boo indi. yàlla nañ daje fi nga bëgg ñu daje fa xoolal man dama ko wax fi may nekk maa ngi din Tivaouane Peulh yi maa ngi dinu Ragloos yi maa ngi dinu Malika yi barke alxuraanu karim chaque lundi ak mardi. Doole yor nga numéro am Doole. bu baax yor naa numéro am. woo ko nga laaj ko Daouda Sane da koy bokk ak mbër wala du ko bokk ak mbër. waaye Daouda yaa moom dini. waaw mais man laa bëgg laajte yow yow dëkk. a ah, Daouda xàll wala xàll. xàlluma moomuma jënduma mais mbër yu ma fay dajeel ñëpp laa la wax. du ma egg dañuy xaar ba ma pare. ñu yëg Ousseyn man bu may dem din man. seul maay doole si ñu dara ma moom. mais woo ko laaj ko li ma la wax. dina la sant man may dem man seul maay ànd. barke alxuraan man kese maay ànd. billaahi wala bu ma dee ànd ak keneen daf may daw la ancien bi toog ci ancien man ma entraîné ñu doo ko dem wala ma ànd ak Papa Mm-hmm. sama coach ànd ak moom maa ngi bu baax a baax a baax booy man mënoo linjaa ba télé ñëw ma soog lay barke alxuraan kay bu mu linjaaw doomu linjaa booy non ay linjaa gaa yi leneen la man maanaam dama lay jaay sañ-sañ booy yow dama mën a jaay sañ-sañ nangu sa alal yow dama mën jaay sañ-sañ nga ñëw ko kon da ah, ngay wala kan ngay waxal nii non damaa xam damaa wax rek jàmbaar rek koy xool si comportement ak kanam mais yow xool naa la xam booy ñun dañoo ay noblesse lañ de mais gis ñu nii rek mais barke alxuraan bu desul lu dul jëflante man noble la man du nopp xool ma xool ma gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo nii lay demee ci jàmmaarloo bu ma gisee jàmmaarloo bi xaw a tàng sama xol bi day sedd ni ko benn waay waxee euh, tonnerre de maa ngi koy nuyu bu baax a baax bu ma bu ma gis rek naan ma yeekatu fitna bi yeekatu fitna bi la may tëddee moo taxit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko wax ne na gën a góorgóorlu gën a liggéeyaat làmba ma ngi ci kanamam ndax ku ko gis ku ne xam ne wàcc na làmb ji te entre na na bu baax a baax a baax nag besub defet bésub ndam na gën a góorgóorlu waa Bawol yi ci kanamam ñoo ñoo ñoo ngi ci ginnaawam ñëpp a ngi koy jàppale bu baax a baax. bu la promoteur woon bu ma génnee ba promoteur woo la. Mhm. dama la ko ñaan rek bu diisal affaire parce que bëgg naa ngeen bëgg naa ngeen bëre ci diir bu barke alxuraan karim billahi bu ma promoteur woo woon tey. Hmm. pare naa même su ñi may àndal bu ñu nangul man pare naa damay bëri. kii moom jox na ma accord moom. man jox sama accord ma ni. barke alxuraan karim man du waaye Ousseyn dinaa delloo man ñi ma bëreel Ousseyn ñoo gën a tàng. ku joxe kenn. daada <laughs> daada waxaale luñ la indil moom. Daouda. jeex man man du ma koy delloo avance. loolu yow a rek. man mën naa toog bëgg bëri. jaral ma may bëre di dem di entraîné di dem di entraîné. bëgg bëre mënoo bëre waaye yow de. Eh, mën na bëre sama waay ga. dara. mënul di entraîné. Mhm. yaa ngi dégg di dem ci àll bi di bëre. di dem ci àll bi di bëre. man. Baara <laughs> fi yoroo fi fi ma bëgg yéen waay waay moom laa lay wax yow a bëre. seeral loolu a bëre. man au chaud au chaud du. Thiatou Modou Dia kañ la loolu kañ la. yàgg loolu. mu la mos a seeraan na. yàggee seeraan naa arène nationale. waaw yàgg na yàggee laa bëgg a xam. yàgg ah, taamu bi yow bàyyi na bëgg a bëre bi nga bëgg a bëre moo tax ma yow. ma la. yow maa yaa ma déggoo déggoo ma. Mhm. benn da ngaa jàpp ne da ngaa jafe daan te war na maam Serap yaa gën a neex daan si mbëri. Ah, baax na loolu yeggagul si mais nag mais nag daaw do kii du encaissé galaa ma koy songaat mu kaat appi ñibbi. kii du encaissé galaa ma ko fay mu ñibbi kii maa ko fii boo yi nii nañ dawal. Ousseyn yéen ñëpp a ngi si làmb ñu ngi si làmb. xale laa. damay entre wu xale laa mënoo koo bàyyi. matin midi soir. parce <laughs> que xale la yow bëri ñëpp nekk xale la. waaw yow nekk xale la yow Balla Gaye ñaata yoon la fi nekk xale. la commencé nekk mag. moom mënul bàyyi xale laa. non xale laa bu ah, gi xale si eh. géej gi di entraîné di mbapatantu xale yi ñoo ñooy xale. Hmm. mais licence kuñ ko defaral nekkatoo xale. est-ce que ay déggoo <laughs> bu baax moo tax mu bëgg a man yaa may dégg. Mm. man bëgguma bëreeg yow de eh, ba li wax bëgguma bëreeg yow de yow loo fi def ba mooy bëgg bëreeg yow. yow li fi def da nga ko fay def. waaye kii neuf combat la am dix combat yi xaj bi yëpp daa daanu man daanu ma jëlal as numéro nga woo lu ma wax du amul yàlla bu ñu seen teg Seera Fall. yow as sa ménagère. yàlla nga gisante eh, Seera Fall yow. barke alxuraanu karim benn defet la am si lamb. as mooy sama ménagère. barke Serigne Touba Mbacke. Peras mooy sama ménagère. maa ngi koy bu baax a baax. as woo léegi. barke alxuraanu karim Ousseyn. da ngay lu la yàlla may. ne lii bi. kii yàlla may ko lu mu ko may ñu xam ne kii yàlla ko mais duñ la nangu lu la yàlla may waaye yow lan la la yàlla may nangu lu ma. waaw mais yaa ngi nii di saltel. saltel ma de. saltel weesu nga am lii. déglu da ngay xaar daaw ko kii mënul bëre. lay hmm. da cee dal. lépp da cee dal. mais da laa soxla yàlla. <laughs> mbër moo mel daaw da champion la. moroom mbërëm di dem te demut sax ah bàyyi loolu bàyyi loolu bàyyi loolu bàyyi loolu loolu bu ko wax loolu baaxul ay mbër la ñun ñëpp ay sportif lañ non non baaxul loolu baaxul loolu loolu baaxul ay man mbër nu mel barki maam Seera Fall dama koy nangul man doo ma laajee si mbër ma wax la qualité mais daa mbër yoo xamante ne ñoo xaw a soxor non bul wax loolu luñ ñoom man soxoreewu ma seen bopp lañ gëm nangul ak liñ am ak liñ gis nangul naa mais kii nii nangul naa la daada champion kii méttiwul sax daada nangul naa la champion kii méttiwul sax lan mooy Franc lan mooy. waxal ñëwal waxal. waaw waaw mbër la. parce que franc moom doo bëggee dégg-dégg kenn du ko laam-laamee mbër la am du mbër franc lenn laa xamante ne laa ko xamal muy xeexam. Mm-hmm. parce que combat am yu bëri xeex ba. du fa àgg mais bu dee bëre laa la wax man am naa sañ-sañu ne mbër yi daa ko bëre si laa am si la bokk man soxoruma lamsaar laa dëgg si yaay dégg combat Ama Modou Lo bañ ma fi laajee damaa wax ku nekk qualité parce que xam naa leen waaw noonu la demee amul ragal ragal féete day xañ a wërsëg. soq nag. waaw soqut mën na bëre mën na bëre waaw te tamit day xeex tamit te benn instant tamit làmb jooju nekkul làmb joo xamante ne dañuy xeex. Mm-hmm. xëy na dëgg la duñ bëree bëre dina am mais duñ xeexee jël bu ñaak fayda lay doon. bu ñu xeexee duñ xeexee jël bu ñaak fayda moo fay am. mais doo bëggee dégg dëgg ñoom ñaar ñëpp am combat. te combat bi si soq la gën a nekk danger sax si Franc. lu tax parce que Franc day ñëw pour mbabat si. Mm-hmm. te yaakaar naa ne mbër doo ñëwee pour xeex sa loxo am na nu muy jógee am na équilibre yoo xam ne dootoo ko am. Mhm. te Franc dafa xaw a gaaw na bàyyi xel loolu bu baax. te bu ñuy xool nag Sokh gën a gën a bëgg combat bi xool moo gën a bëgg combat bi. Mhm. mais na dal rek bu mu naagu. na dal rek parce que ñoom ñaar ku ne mën nga daan sa morom. Mhm. waaw. Sokh Franc. ah Sokh Franc ñoom ñaar ay champion lañ Franc champion la Sokh champion la. waaw lamb la rek. lamb moom mënul weesu lamb quoi. waaw ku yàlla jox ndam rek nga xam ne noonu la quoi. naka ngeen leen gisee état de forme mooy. waaw ñoom ñaar ñëpp waaj nañ ku ci nekk waa nga ak say mbokkam Franc waaj na ak ay na ak ay mbokkam. Mm-hmm. mais lamb la rek mënul génn cadre sport. sport la dañ xam ne Sénégal la yam xam ñoom ñoo bokk ndey bokk ku mu gën a ñoom ñaar ñëpp kenn du ci xeexaat ñoom ñaar ay bërikat lañ. kon dañ dañ dañ seen. waaw xeex jixaat gi ñuy wax dañ koy woote. non dañuy woote nii rek mais ñoom ñaar ñëpp ay bërikat lañ. waaw xeexkat amu fa quoi ñoom ñaar pour man sama gis-gis quoi ñoom ñaar xeexkat amu fa ba ñoom ñaar ñëpp ay bërikat lañ ko wax. soo amoon kàddu yu mujj daaw da waaw kàddu yu mujj di bëgg jàmbaar yi rek. Mm-hmm. waaw di bëggee waa Lamsar. Ceg saa waxi naan Diamaguène Fass Mbaaw Mbaaw Kër Mbaye Fall yëpp maa ngi bëgg gaa yëpp di bëgg waa benn baraag ma yaa maa ngi sant bu baax a waaw caw sa xiir maa ngi bëgg bu baax ma yaa nañu waaj waaw nañu waaj soriwul dara nag waaw soriwul dara daanaka ci kàttan suñu borom du ma yàlla bi ñuy galaa jeex moom muy bii ak beneen nag beneen a si am bii jox naa sama accord yow yaa géré. ji nañ doon nañu wax waxaale tamit leneen loo xamante ne tamit soreekuñ si lu ñëw rek ñu dem ñàkkante ji ko di ñaan suma yaay nag bu baax a baax a baax. Mhm. suma mag fëgg maa koy sant taxaw bu sama nijaay aaya. foog maa koy sant bu baax. Gara Kaba Ndemba sama gaan maa leen di bégg ñoom ñëpp ay Mora Labin Seras Raku Yatma maa leen di siyaar ñoom ñëpp di leen bégg naaj c'est Amar sama mécanicien bi sama mécanicien sama gaan sama lépp maa ngi koy bu baax waa Ruquma nag maa ngi leen di bégg bu wér di ñaanal ñëpp jaamu di wax lamsaar gépp nag nañ waaj. nañ waaj nañ waaj bu baax. Mm-hmm. waaw xam ni léegi rek yàggatul waaw sëñ Fallou. Mbacke kàddu yu mujj. waaw Ouzin di sant rek di sant fi ma jógee muy parcelle 1 ba 26. rawatina sama waa koñ mu indi 12. waaw maa leen sant ñoom ñëpp di sant booy mu ne Laurent sant naa booy yëpp. sama njaago bi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. di sant suma yaay Waly Ndiaye du ma di ko sant di sant papa Ndiaye suma maman Faati sunu yaay. ñu ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla papa kooku moom amatuma fayam. sant Ndiaw Pa Ousmane Dieng xam nga seen yaay Waly maa ngi koy sant bu baax a baax Xaadim Diop da ciy jàpp. sama koñ ñëpp maa ngi leen di sant mécanicien yi atelier njagab yi gaa yëpp sama koñ gaa yi bàyyi ma kenn daal di sant maam Ngor borom Ngoy maa ngi sant waa Ngoy ñëpp waaw ndax dama faa dem bëri ci Korité bi ñu taxaw moo comme ni ñuy taxawoo seen doom wallahi te mënoon nañ ne kii daa wàllu yaan si rek xam nga mais di sant waa Ngoy ñëpp ñëpp di ñuy jël ñëw di ko teg ci loxo maam Ngor di sant suma waa dëkk waa ceeb fu ma a yaay ñoo bokk ndey ak baay maa koy jaalee xam nga di ko di di ñaanal fépp fu nga xam ne ñoo fa nekk ñu fa fekk rek yàlla na yàlla yërëm waaw di ñaanal waa ceeb ñëpp di ñaanal sama nijaay fi des tamit Baye Serigne Papa Gueye ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di sant sama waa dëkk waa ceeb maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax waaw. waaw jàmbaar yi boobu dama koy ber di ko may jàmbaar yi. du ma lim tur mais dama naan tarkindaa yi ñëpp bàyyiwuma kenn ñëpp cat ba suuf bàyyiwuma kenn sànce bi nag gars yi ñu ngi si. képp ku si mën a fekk jàmbaar ji bàyyi faal ku si mën a fekk. na nga ko si fekk si. te xam ni maanaam dërëm bi génnul gaal gi sotti si la rek ak def si. gars yi ñu ngi si bu baax a baax a baax sant nañ nag ñëpp ñu si jàpp. si te ñu ngi koy sant bu baax a baax parce que li mu def nii ñun sax. duñ ko yoroon def ko si. xaw na suñu borom si loxoom la ko jaarale. Mm-hmm. ba tax mu. def ko kon tey nañ ko ñaanal yàlla mu eggali yéene ji. di mm-hmm. sant ñëpp ñu fay xëy. ñoom Seck ak ñoom Laurent ak ñoom Thiat Fora ak yi fa nekk yëpp di xëy ñëpp ñu ngi leen bu baax di leen bëggee. di ñaan suñu borom kàttanal ko ba mën ko àggale. képp ku ñu si mën a dimbale nag nag ñu si dimbale jàppale ñu si jaayee papa. waaw Ousseyn maa ngi rek. Mm-hmm. sant su ma am su yoo xam ne du ma leen ku ci mel ni Jibi Ndiaye. Aada Aada Diop maa ngi koy sant bu baax. Mhm. Papa Gueye sama nijaay tamit maa koy santaat bu baax a baax a baax a baax waaw di sant sama waa koñ a booy ñoom Laurent Ahmed mhm. Bayane Ousseynou Mbaye Ousseynou Laay xam nga gannaaw koñ bi ñoom Galas Saara Pape Ndiago Bokar Dëx gaa yëpp ñoom Abdoul gaa yi bàyyi ma kenn ak sama mag Babacar sama mag bu koy sant moom su ma féete la. Mhm. maa koy sant bu baax di ko gërëm di sant Papa Sow bu baax a baax a baax ma Modou Lo. mais Papa Sow dafa doon nit koo xam nit ku yaatu la. écurie mënoon nañu gaa yi bokkuñu écurie mais gaa yi daanaka fa la waaw di sant waa Rock Énergie sama coach Pambay maa koy sant bu baax a baax a baax waaw mais Papa Sow moom kenn la ci xarlu bi wallaahi kooku borom baax la di sant waa Poro Oto ñëpp ñoom Ibulaay xam nga maa ngi leen sant bopp ñëpp ñoom ñëpp daal bàyyiwuma kenn bu ma nee Ibulaay rek sant naa ñëpp nuyu naa ñëpp maa ngi sant ñëpp daal. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo euh, di leen jox dig daje di leen wax ne nag combat bi bëgg naa mu taxaw. su ma fi jugee nag dinaa woo ñu ma woo ah, day taxaw de dinaa woo ñu ma maa ngi jaajëfal ki nga xamante ni mooy daada bu baax baax di nuyu magam fëgg la di ko wax ne gis nañ des fois ni muy taxawoo booy yi ak ni mu leen di jàppalee di ko wax na noonu la comme que noonu la nekkoon nekkoon na ci làmb ba jóge ci ay rakkam ñoo dugg ci làmb gis nañ ni mu leen taxawoo Euh, Mbacke moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax baax xale la boo mm-hmm. xamante ni bëgg na entraînement ndax lu ci bari dama koy faral di gis saa bu gisee mu ko gis mu nekk ci liggéey wi di ko wax ne nag noonu la làmb moom liggéey dongo la ku liggéey ku nekk ak fayeeku di leen jox dig daje beneen yoon beneen jàmmaarloo ak yeneen bër jaa jëf.